asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu tout en espérant que yéen a jàmm bu baax a baax alors tey dañu déplacé wu jóge ba Dakar ñëw fi nga xam ne moom mooy Mbour euh, ñoo fekk si fii suñu jigéen elle s'appelle tout simplement Mamita bi nga xam ne tey moom moo doon euh, ubbi institut de beauté bi tudd Mamita Fashion Shop alors dama koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee ñu ñëw ak moom ci sentiment yi mu am tey ak aussi liggéey bi mu wax ñu ci tuuti mami maa maa ngi ci jàmm ba. maa ngi si jàmm alhamdulilah. ma bàyyi la nga nuyoo ci mbokk internet ok maa ngi nuyu ñëpp euh, di nuyu sama fans yi nuyu sama waa kër nuyu sama waa salon nuyu àdd nuyu àdduna yëpp parce que ñi la bëgg rek amoo seen fay kon damay nuyu ñëpp duma bàyyi kenn. voilà très bien moom wax naa ko léegi à l'entame de mes propos que tey euh, da nga ñëw ubbi sa propre institut de beauté nga xam ne yombul vraiment ci jigéen euh, ngay xale aussi euh, di entreprendre aussi ba liggéey ba am sa yëfi bopp tey yoon gi lan nga dund ak métit bi ak fan ak fan nga jaar ba tey nga taxaw lii <laughs> ah su ma naree toog nag di wax fi ma jaar yaakaar naa doo leen fi jóge parce que euh, nekk na moment boo xamante ne difficile na trop mm-hmm. euh, ñii ne woon dina fa yegg wala ñii ne woon mën na fa yegg wala du fa yegg wala dina ko defam du ko def mm-hmm. si moment boobu laa xamee ne ndaw laa mm-hmm. dama gëm sama bopp yaakaaruma si kenn nit euh, ma xam ne lépp lu nit am ci àddina man mën naa koo am parce que ñaari góor ñoo ma jur ma juddu ñetteel leen. te ma am ay waajur yoo xam te ne macha allah yal nañ xippee aljana muy sama waajur bu góor ak bu jigéen yëpp dama leen di sant lii ñëpp ñoom la parce que sama yaay liggéeyal na ko sama papa sama papa ñaanal na ma ko sama yaay ñaanal na ma ko kon dama naan du sens mérite la parce que liggéey naa ko si samay parent donc nag metti woon na torop parce que dama doon jug di daanu parfois mu neex parfois mu naqari parfois nga daanu parfois nga perte mais à chaque fois rek man gëm-gëm laa jiital dama gëmoon ne dinaa fi yegg si alhamdulilah te damay ñaan mu sax dàkk. très bien comme ni nga ko waxee lépp lu nit sonn bu ëllëgee di nga ci fayee ko alors tey ñu ñëw ci salon bi fekk ni que euh, gis ñi lu yanj la aussi mais quand même bëri na aussi ci li ngeen di liggéey est-ce que mën nga ñu ñëwaat un tout petit peu ci lan ngeen di liggéey ci salon bi. Euh, salon bi nag mën naa ne dañuy def lépp parce que lépp loo xamante ni rek loxo moo koy def. ñoom ñu ngi ciy yëngu mm-hmm. parce que nekkuma fi man kese dooleelu ma sama bopp mm-hmm. dama fi nekk ak samay moroom mm-hmm. ñuy samay xarit ñuy samay àndandoo di samay lépp ñoom laa fi nekkandoon ñuy liggéey liggéey bu jaar yoon tamit di ma jàppale ci affaire bi parce que mën nañ ne li may def c'est peu par rapport ak ñoom li ñuy def mais macha allah bu ñu fi newul woon it euh, mamita bi mën na siiw de mais tolluwaay bi du yegg fenn fi wala ku dem doo ñëwaat. dinañ def make-up dinañ pédicure soin de visage dinañ def pose sans col la sa bopp lépp lu nit bëgg daal ci soin muy homme et femme dañ koy def ci kàttanu yàlla voilà mhm. liggéey rek lañ gëm xeebuñu dara. très bien alors mu mel ni leer na est-ce que mun nga ñu rappeler waat encore une fois euh, place bi fan la nekk lieu bi adresse bi ak aussi boo amoon ñooy sant nga sant leen vite fait. Euh, place bi nag mu nekk fii 11 novembre. Mhm. parce que fi laa juddoo fi filaa yaroo fi laa màggee malgré que euh, am naa beneen boutique Medsef mais je me disais pourquoi pas fi ma juddoo yaroo fi màggee fi ma def fi loo xamante ne bu ëllëgee dinañ xam ne seen doom def na fi leen mhm. euh, moo tax ma tijji ko 11 novembre à l'hôtel Kawsara mhm. mi ngi fii côté Ecobank bi ex São boo ñëwee foofu rek incha allah rabi lépp loo bëgg ci baax baax dinañ la ko defal dañuy jaay aussi ay cheveux naturels mhm. depuis huit ans ñu ngi ci te macha allah yàlla may nañu ci teraanga. Mm-hmm. Mm-hmm. boo amoon ñooy sant bi. man na ñi may sant dina bëri de. Mm-hmm. parce que nitu nit ñi la te àdduna dañ maa bëgg damay sant ñëpp di gërëm ñëpp. particulièrement à ma famille parce que ñoo may jàppale di ma dooleel. bañaluñ ma dara bëgg ma lu ma neex neex na leen samay mag laa nekkal sama yaay nekkatu fi mais macha allah. dama leen sant ñoom ñëpp di leen gërëm awma seen fay di sant samay xarit gis naa taxawaay bi ñoom jey naa et tout sant sama waa salon sant Anta sant Ndey naa te Fay dinaa sant Binta dinaa sant Ndey Roqay sant Mamita mi nga xam ne moo nekk ci bitik bu mag bi nga xam te ne mën naa ne lu bëri moo ko apporté ba ñu mën a tijji deuxième bitig parce que bu daanee loon première bi deuxième du mën a am mm. je la remercie di remercier Ndeye Faye aussi parce que quand j'étais pas là j'étais avec ma mère bu mu malaatee mm. elle a mm. vraiment di sant ant tamit bëgg place bi jël ko def ko comme place am mm. sant suñu waa kër sant sama belle aadama Adama lay mënuma wax te duma wax ci moom parce que góor-góor rek lay doon te sama nit la dama koy ñaanal yàlla na li mu bëgg ci séyam bi ak li mu bëgg suñu kër yàlla na ko yàlla defal kontaan naa daal ku lim juum mënuma tudd ñëpp mm-hmm. vraiment je suis tellement émue damay ñaan rek lenn rek laay ñaan suñu boroom parce que lu bëri defal na ma ko tey am na samay moroom yu fi yeggagul euh, yàlla su la defalee teraanga da nga koy wax damay ñaan rek yàlla saxal teraanga bi bañ ci ji yeneen ak yeneen parce que am na ñeneen projet yu war a ñëw bientôt comme la marque Ousmiane euh, di vrai non euh, sama tur yaay sama turu papa je l'ai marque Ousmiane bi mu ngi ñëw incha allah bientôt ñu xaar ko ak yeneen ak yeneen projet yoo xam ne ndaw nga boo nekkee ci yoon nag di dem bu bëri rëkkale ko rek ba mu ba mu sotti ak jàmm ak salaam incha allahu rabbi mm-hmm. ak ñu ngi sant bu baax euh, di la sant aussi di sant waa enquête mm-hmm. gis naa déplacement bi mm-hmm. taxawaay bi encadré ngeen bis bi vraiment kontaan naa awma seen fay plus particulièrement à Petit Kébé vraiment merci à vous seen liggéey daal macha allah kontaan naa voilà merci beaucoup merci également aux internautes yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan vraiment li mu fi wax nii ak jaar-jaar bi aussi ça prouve que euh, depuis longtemps mi ngi góor góorlu bu baax a baax nii rek la jigéen boo tollee ci liggéey da ngay nekk ci waar bi te loo sonn lu ne suñ borom na ci dimbale merci beaucoup on espère bien que nii lii ñu leen fi jëlee neex na neex na leen bu baax a baax merci beaucoup à l'infatigable Mor kebe à Djibi Sall également moom tey moo ñu dalal biir Mbour vraiment kontaan nañu bu baax a baax on vous donne rendez-vous très prochainement ci yeneen i émission incha allah jaa ngeen jëf.